mooy suratu yaasin yaasin saar la wu bari ngëneel ngëneelam ya yonantu bi sallallahu alayhi wax na ci ci bari ci ay ahadis bokk na ci yonantu bi nee na képp kuy jàng yaasin bu yowmal qiyaamee yaasin day sol robbu avocat défendre la sa digganteeg sa borom soo ko jàngul nga koy déglu moo xam ci sa téléphone nga koy déglu walla ci tele bi wala ci rajo bi wala ci ordinateur bi wala ci internet bi déglu gi koy déglu rek yàlla dana la ci bindal ay malaaka yuy sax di la jéggalul yàlla moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne tashfa'u li qaari'iha wa tastaghfiru li mustami'iha loo rek nga del la ñaareel bi tamit wax na ne yaasin ku ko jàng wenn yoon rek yàlla dana la bindal yoo yoolab ku wàccee alquran fukki yoon xadis boobu bayhaqi moo ko solo mu ne man qaraa yaasina fa ka annama qaraa alqurana maratin mu bokk ci ngëneeli yonentu bi sallallahu alayhi wa ne ku jàng yaasin bi nga xëyee suba teel da nekk ci mbégte nekk ci xéewal ba bay ngoon di jotee nga jàng ko ngoon yàlla defal la sécurité ak xéewal ak mbégte ba bër ba fekk bay bër di setee xadis boobu daarimiyu moo ko solo mu bokk ci xadisu ibnu abbas yi yonentu bi man qara a yaasiina xiina yusbixu utiya yusra yawmihi xatta yumsiya wa man qara'aha fi sadri laylatihi utiya yusra yusra laylatihi xatta yusbiha bi ci tegu tamit yonentu bi nee loo gis lu ne am na xol waaye nag dëgg-dëgg alquran bu doon jëmmu xol ba mooy yaasin inna li kulli shay'in qalban wa qalbul quran yaasin lu tax nag muy xol yaasin ni ko sëriñ bi waxee démb li muy jàngale yëpp wàllu pas-pas la nu ñu war a wéetalee yàlla ca kennam ka nu ñu war a dëggalee yonantu bi ca yonantoom ga nu ñu war a mën a settantal ci miracle yi yàlla def ci suuf seeg asamaan seeg jant bi ak taxawaayu bis penceeg wal bufta baak yooyu yëpp nga man cee kalam ba xam ne yàlla kenn la loola lépp nag xol a koy fas li koy xol di fas nag moo waral kon lu ñuy jëfe ci cër amul ci yaasin du julli du hoor du joxe asaka du aj màkka li ci ne yëpp xaqaa'id la te xaqaa'id yooyu qalbu moo koy def moo tax mu nekk di xolab alquran moo tax yonent bi ne li kulli shay'in qalbun euh, inna li kulli shay'in qalban wa qalbul quran bi nee nag képp ku jàng yaasin ci guddi sàkku ci jëmmi yàlla ji yàlla dana la jéggal say bàkkaar ci guddi googa kon war na jullit bu ne rek bala ngaa tëdd fexe ba jàng benn yaasin man qara a yaasin fii laylatin ibtigaa wajhi laa gafarallahu lahu fi tilka laylati xadis boobu mi ngi ci sahihu ibnu hibaan mu bokk ci xadisu abdullahi ibnu jaabir yi ba tey moo tax foor googu saar wi foor yonent bi ku bëgg yiw la te ku yéene xeetam xeetam yu yiw la mu ne man daal bëggoon naa képp ku bokk sama xeet wi rek nga góor góorlu ba man yaasin mu nekk ci sa xol yonentu bi nee na bëgg na bépp jullit bu bokk ci xeetam bi lu sa aliwa gàtt gàtt loo naqari naqari xel fexeel ba yaasin nekk ci sa xol bi nga mokkal ko kon loolu yow mi jàng français demal nga seet ko ci niñ ko traduire nga jàng ko yow mi man anglais espagnol lépp yàlla dimbale nañu ba traduire nañ ko ci alquran demal nga góorgóorlu ci moo tax mu ne la waddittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati yonentu nag lu lu mu bëgg lu ne soo bëggee texe danga ko koy bëggale nañ ci góor góorgóorlu kon kenn ku ne fexe ba man yaasin ngëneel yi ma wax yëpp far na ko tënk ci benn xadis boo xam ne dugal na li ma wax waaye dugalaal na li ma waxut nee na yaasin li ma xuri at la yaasin daal loo ko jàngal yéene ko ci rek danga nga ko am kon yow mi xëccoo maire yi ci gox yi jàngal yaasin incha allahu da nga am résultat bu baax yow mi may déglu nekk université wala foo mën a nekk di def examen jàngal yaasin incha allah danga at mi yow mi bëgg a tukki ak foo mën a bëgg a dem ci àdduna bi wala yaa ngi tukki bëgg ay kayit wala yaa ngi déposé say CV bëgg ñu jël la jàngal yaasin nga sellal ko incha allah da nga am li nga bëgg soo ko jàngee nag ñi ma tudd ak ñi tudd te amuloo li nga bëgg yaasin ma ma nga fa nga newoon waaye yow yaa ne fa nga newut soo boobaa seetal sa bopp rek waaye yaasin moom la ci yonent bi wax moom du jug yaasin ma nga fam ne waaye yow boo newul fi nga ne tamit doo ko mën a jëriñoo moo tax kon mu ne yaasin li maa quri at la kooka dugal na mbooleem luy bëgg-bëgg ci nit yi ma wax yëpp nag njariñ la yuy dellu ci kiy dund waaye yaasin ëmbati na ay njariñ yuy dellu ci ki dee alquran bëri nay saar waaye yaasin la yonent bi cité na jàngal leen ko seeni niiw iqra'u ala mawtaakum surata yaasin ku am niw ñu ne génn na àdduna jàngal ko yaasin nga yéene ko yool bi moo tax suñ mag ñi kenn du leen jàngal diine bu nit mosaan génn àdduna ba ñu denc ko bañ ne suul bi mat na maasale na ñi seet ku man alquran ñu ne taxawal ca bopp ba jàng yaasin ñu ne yow mi jaa taxawal ca tànk ya jàng mulki ndax yàlla man koo dimbale ba du am benn fitna du am benn jafe-jafe ci biir bàmmeelam léegi-léegi nag nit weddi ne ay armeel ku ñu rob kenn waru faa jàng alquran hadis bi moom dafa ne ku dee rek jàngal leen ku dee yaasin ki dee nag xaqiqatan mooy koo xam ne ruuxu ga nekkatu fa rek moo xam denc nañ ko moo xam dencaguñ ko loo ca def tamit moom dafa ne iqraw ala mawtaakum rek surata yaasin yow na boo bëggee jël ki dee wane ne lim ci nammu ala mawtaakum mooy kuñ teewal ab digga mu nekk ci sababu dee waaye deeagul kooku majaas la majaas nag ci xam-xamu balaaka balaa mën a wér dafay am xarinatu waaye bépp majaas bu amul xarina rek wax ju wax ju wax jooju duñ ko mën a nangu kon nag boo ne mawtu ji mi ngi ki namm ku nekk ci sababu dee kon war ngaa andi xarinatu buy tegte ne loolu la ca namm parce que amul ci amul ci hadis bi te ànd ak loolu tamit beneen hadis dafa ñëw dëggalaat wax ju mel noona yenoon bi nee amul benn niiw buy génn àdduna ñu jàngal ko yaasin lu dul ba yàlla jàppandal na ay mbiram ci biir fa mu nekk ma min mayitin yamuutu fa yuqra'u indahu yasin illa hawanallahu alayhi kooku ma ngi ca musnadu firdawsi kon nga xam ne kon jàngal nit ki yasin ak fu mën a nekk génn àdduna baax na dara nekkut ci an ànd ak loolu waxuma yaasin rek mais jàngal nit ci ay armeel nga dugg fa jàng xul walaahu yéene ko waa armeel ya dagan na hadis tegtale na ko hadis bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax daarul qutni moo ko solo mun a yonentoo ne man daqalal qubuura fa qaraa qul huwa allahu ahad ihda ashara marra summa wahaba sawaabaha lil amwaat utiya min al ajri bi adadil amwaat yonent bi nee na ku dugg ci armeel jàng fukki qul wallaahu ak benn yéene ko waa armeel ba ñoom ñëpp dañ ca jot waaye yow da nga am yool bu day na ñu nekk ci armeel ba kon nga xam ne kon jàngal nit ku génn àdduna euh, maanaam alquran moo xam ci armeel la moo xam ci kër ga la dara nekku ci dagan na yi ma wax tefale na ko waaye tamit tegtale na ko ku dee mën nañ ko jàngal quran mazahib yi ñeent la imaamu ahmad shafiiyu imaamu malik ak maanaam eh, abu hanifa soo jëlee ci ngiru imaamu ahmad dafa bokk ak ak ak ngiru imaamu shafiiyu dafa bokk ci ponk ak julleeg niiw ci ñoom bu ñuy dullee néew bi dañ koy jàngal fatiha fatiha ci alquran la bokku te kii dee dee na ba pare malik nag moom bu fekkee ci ngiram la ak Abu Hanifa ñaan lay doon waaye amul jàng alquran waaye ñaar ñee ma wax la ñeenteeli ponk ba ci julleeg niiw mooy jàng fatiha fatiha alquran la di te koy jàngal ni génn na àdduna ñu ngi ko sàng kon man nañoo jàngal ku génn àdduna alquran euh, loolu tamit muy boo jëlee mafhoomu al man tookul quran bu mën ko jël ci ci mafhoomam mafhoom bi mooy ne boo demee ca ibnul qayim téere bu ñu tuddee ar ruux mun a yonentu dafa ñoo sant ne buñ duggee ci armeel nañ nuyu waa armeel ba xadis bi muslima ko andi ne ku duggate ci armeel na wax ne asalaamu aleykum ahla diyaar min al mumini min al muslimina wal min al muslimina wal muminin wa inna insha allahu bikum la laaxiquun nasalullaha lana al aafiya ku dugg ci armeel ñaanal loolu su ko defee nag kon mu ne baat boobu nga leen di ñaanal nuyu gi ak nga toog seen armeel di leen siyaara ñoom dañ koy wettalikoo te pourtant nuyoo bi waxi mbindéef la waaw waxu mbindeef ku nekk ci biir armeel bu koy wettali ko waxi borom mbindeef yi nag kon moo ko gën a mën a wettali kon kooka dara nekku ci ñaareel bi tamit boo jëlee ci mafhum yonent bi mos naa yebal benn njàngal ñi dem ci benn xare yàlla dogal ñi samp seen benn xayma bi ci benn place ne ko fi ñu ko samp armeelu benn waay la ñu toog rek dégg waa di jàng tabaaraka ci biir armeel bi ñoom tamit ñi dem wax ko yonent bi yonent bi sallallahu ne leen waaw waaw hiya moom tabaaraka suratul mulki day jañal képp ku koy jàng ci mbooleem xeeti musiba yi adduna ak àllaaxira waaye day musal tamit ku koy jàng ci mbugalam bàmmeel ñu ne waaw kon ki nekk ci biir bàmmeelam di jàng tabaaraka waaw kon yow mi nekk ci kaw bàmmeel bi moom mu nekk ci biir boo ko jàngalee tabaaraka wax dëgg yàlla juumuloo ndax la muy jàng moom nga ko jàngal su boobaa kon nag yooyu yëpp mën nañ ko cee déggee moo waral même tamit asar am na ci boo jëlee ci asar abdullahi doomi Omar ibnul Xataab la kenn gënu koo xam sharia moo bàttali woon ne su ma génnee àdduna na ngeen ma jàngal suratu baqara ci sama armeel bi kooku kenn du ko jàngal sharia te loolu alquran la moo tax imaam ahmad moo njëkk a wax ne jàng al alquran ci armel bidaa la inal qiraata inda al qubur bidaatun imaam ahmad da ko njëkk a wax waaye ba mu ko waxee ibnu qudaama moo ko ci génnee dafa ànd ak moom ñuy rob benn néew ñu denc ko ba pare benn gumba toog ca bàmmeel bay jàng alquran imaam ahmad woo ko mu ñëw mu ne ko jugal fii li ngay def lii biddaa la al bàmmeel kenn du ki jàngal quran bañ demee ba génn armeel bi su ko defee ibnu qudaama ne ko xanaa yëgoo ne ibnu omar dafa bàttale woone ne bu génne àdduna nañ ko fa jàngal eh, suratu baqara ci ci ci armeelam ba xanaa yëgoo ne xilaaj dafa dékkaane woon nañ ko jàngal commencement wu baqara ak fin wu baqara nañ ko jàngal ci biir armeelam ci kaw armeel bi boo ko waxee nag booba la imaam ahmad ñoom fu leen dëgg jotee te xam nga texte yi alquran yi ak texte texte hadis yëpp ak li borom xam-xam yi wax la loo géeju géeju ci xam-xam noo jot lépp sa saasa dangay jot lii di jot lii alamta shay an wa gaabat an ka ashiyaw waaye ba muy jotee loola keroog la koo gumba ba ba mu ñëw ne ko dellul nga dem ca armée ba nga continuer sa njàng ma ñoom nitu dëgg lañ fu leen dëgg dabee rek maanaam ñi ñi ñi ñi dëpp ndax keroog la yëg loola ba ko yëgee tamit dana ko demal foofu nga dem jàngi moo tax gaa yu baax yépp boo demee ci téere yi jàngal nañ leen alquran bañ génnee àdduna Seydi Ahmad Tijani Cherif radiallahu anhu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul Seydi El Hadji Malick El Hadji Abdoulaye Niass moom bàttali woon na ko ba ne su ma génnee àdduna xalifa yaag sa rakk yi wàccee leen ma kaamil kon nga xam ne kon loolu dara nekku ca boo demee ci albidayatu wa nihaaya eh, borom borom téere ba Ismail eh, di Imaadu Diin wax na ne Ibnu Taymiya ba mu génnee àdduna avant ñu koy denc wàccee nañ ko kaamil loolu demal ci albidaayatu wa nihaaya da nga ko ca fekk kon nga yëg ne kon jàngal nit daal alquran wala ñu jàng ko ci armeel loola dara nekku ci euh, bi ci tegu tamit saar wi ngëneel yu rëy yi mu làmboo moo tax turam ya bari ndax bëri tur dafay tegtale tedd ak la ñuy tudd moo tax saar wi lu bëri tur la danañ koy tuddee moo am mimatu moom yaasin danañ koy tuddee daafiatu danañ koy tuddee qaadiyatu danañ koy tuddee yaasin ñetti tur yooyu Aboubacar ko jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko tawreet lañ fa daan tuddee yaasin mooy muammima mu ne ko maa maanaa muammima mu ne ko li annaha taummu saahibaha bi xayri dunia wal axirati moom yaasin ku koy jàng dana la mataleel yiwu adduna ak wa alaaxira doo teqalikoog moom mu ne ko daafiatu mu ne ko day jañal képp ku koy jàng mboole musibam adduna ak mu alaaxira mu ne ko qaadiyatu mu ne ko day fajal bépp soxla kuy jàng yaasin rek yàlla faj say soxla kon ñetti tur yi lañ ko tuddee woon ca tawreet ta fekk ñëwagut waaye turam yëpp nag li ci gën a siiw mooy sóoratu yaasin bi turam ya bëree moo tax turandooram ya bëri moo waral ñu ne yaasin turu yàlla la am na ñu gëm loolu ñeen ñu ne yaasin turu alquran la ñeen ñu ne yaasin maanaam turu malaaka la fukki malaaka ak ñeent ñoo ko tudd loolu la borom ruuxul bayaan gëm waaye nag ibnu abbas ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañ ne yaasin turu sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam wax jooju nag moo ci gën a siiw wax jooju moo ci gën a siiw moom la ibnu abbas wax te mooy xibrul umma moom la yonent bi woowoon ba mu ñëw mu ne ko ŋaal mu ŋa mu ñaan tafli ci gémmañam nga ne yow yàlla yàlla nga ko déggloo alquran taawilu alquran ko li mu wax ci alquran ñi gëm ko ñaareel bi tamit moom la yonent bi waxal boppam yonent bi nee na yàlla tuddee na ma juróom-ñaari tur ci alquran inna allaha sammaanii bi sab'ati asma yàlla tuddee na ma ci alquran abdullahi jàng ko ko wa innahu lama qaama abdullahi subhaana la si asra bi abdihi yàlla tuddee na ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng nga ko muhammadu rasulullahi wala maahu ashiddaau ala alkuffaari yàlla tuddee na ko ahmadu jàng nga ko yaati min baadi yasmuhu ahmadu yàlla tuddee na ko muzammilu jàng nga ko yaa ayuhal muzammilu yàlla tuddee na ko muddassiru jàng nga ko yaa ayyuhal muddassiru yàlla tuddee na ko taaha jàng nga ko taaha ma anzalna alayka alqur'ana yàlla tamit tuddee na ko yaasin mooy yasin wal qur'anul hakim jii nii wal qur'anil hakim nga jàng fii kon juróom-ñaari tur yi la yàlla tuddee yonantu bi ci biir alqur'an yasin nag soo ko jëlee di calculer aayaat yi moom yaasin dana la jox juróom-ñetti fukki aaya ak ñett moom la moom la maam la saar wi ëmb juróom-ñetti fukki aaya ak ñett mooy saar wi soo jëlee baat yi juróom-ñaar téeméeri baat la ak ñaar fukk ak juróom-ñeent 729 ci ay moo moom saar wi soo jëlee xaraf yi nga calculer ko ñetti junnee xaraf la saar wi nag bi mu wàccee yonentoo ne nañ ko dugal ci diggante faatiri ak saafaati li ko waral alquran dafa nekk ci dayoo eh, maanaam toftale bi nga jàngee suratu fatiri avant muy jeex yàlla dafa ne yonantu bi de nazir la ba mu leen ñëwalee dañ ko weddi wa jaa jaakumu naziru waaye ànd ak ba mu ñëwee tam weddi nañ ko ñaareel bi mu waxaat tamit ne wa sa mu billahi jahda aymanihim la in jaahum nazirun ànd ak loolu lépp nazir bi mu ñëwee ñëw weddi nañ ko ne du moom waaye boo jàngee tamit saar wa balaa jeex dana ki tudd biram jant beeg weer wi moo tax mu ne wa saxara shamsa wal qamara kullun yajri li ajali musamman am na ci saar wa waaye tamit moo tax tamit alquran dafa nekk ki dayab toftale comme nag yéen a waxoon bu nazir ñëwee ngeen gëm ko te ñëw na ngeen weddi ko maa ngi waat ne man yàlla ne kii mooy sayyiduna muhammad ne wal qur'anil hakim innaka la minal mursalina ñaareel bi tamit comme tuddoon na fële jant been weer wi dana ko wax fii ci saar wi wa shamsu tajri li mustaqarin laha dalika taqdirul azizil alim waaye dana wax tamit ci ci weer wi ne wal qamaru qaddarnaahu manazila ñee jàng wal qamara qaddarnaahu manazila kon lu ci mën a am nag toftaloo googu mu toftaloo moo tax bi saar wi wàccee yonantu bi ne nañ ko def ci diggante ñaar yi mu nekk saar wi nag wax naa la ko euh, wax naa la ko yaasiin ñeent lañ wax ñii ne turu yàlla ñii ne turu malaaka ñii ne turu alquran ñii ne turu sayduna muhammad sallallahu alayhi suñ mag ñi kenn du leen jàngal diine ñoom dañoo gëm ne turu sayduna muhammad la ne ko sëñ bi waxee démb moo tax ñoom ñu ne du turu malaaka du turu yàlla du turu du turu du turu alquran waaye turu sayduna muhammad la moom la maam alaaji malik gëm moom nga dégg mu ne yasiinu yaqra'u yaasinan fa jaa lahu wiqaayatan lam yanal man kaana fil ujumi moom la maam xalifa ñas gëm moom nga dégg mu ne wa rabyu wa dabbu fil baydaayi qad shahida an laysa azamu min taaha wa yaasini kon su suñ mag ñi kenn du leen jàngal diina luñ ci wax ñi bàyyi ko ca yaasin mii nag eh, cosaan ba baat bi moo doon insaan yaa insaanu la waaye dafa ñëw ci langu tayyu arab dafa bëri ay xabail ni ko olof amee séeréel am ko ñeneen ñi am ko noonu la amee tamit ci alquran moo tax kon baat bi insaan la woon boo jëlee insaan nga tasxiir ko unay siinu la lay jox ñi jàng naxu ñoo xam loolu soo ko tasxiiree tasxiiru taazim la unay siinu la lay jox nga dagg genn wàll ga muy hamsa ga ak nuun nga ak yaaga mu des siinu nga jël xarfu nidaa dugal ko ci muy yaa siinu loolu mooy ci lugatu tayu moo tax insaan yaa siinu bi maanaam yow doomu aadama yow nit ki te nit koo manke na mu sayduna muhammad kon baat bi cosaan la moo doon unay siinu muy tasxiiru insaan nga dagg saturu ba mu des maanaam siinu arab danay waxee noona euh, baat bu mat ba pare nga ñëw dagg ca da ngay dégg kii gëñ ne ay mulaahi mooy cosaan la barke yàlla waaye dagan na nga dagg miim nga rek ne aynu laahi au lieu que miim bi kon loolu day am kon yaa sin na ngoog teg leen seen baaraam moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xewalaa koon bépp mindéef ci àdduna arahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira yaasiin e yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal quraani man yàlla gëñ naa ci alquran alxakimi ay alquran jay borom ma xereñe ci nose ci usloob ci solo lu faddu ne innaka naka yow la minal mursalina yaa ngi bokk ci ñu yónni ña ala siratin yaa ngi ci yoon mustaqim bu jub kocci fi nga teg sa tànk foofu la moom alquran nag wàccee nañ ko moo tax mu ne tanzilul asiisi wàcceeg aji tedd jala rahimi kay borom ak yërmande wàccee nañ ko ci yow li tungtira ngir na nga waar xaw man aw nit maa unzira um waareefu toon abaahum seen bàyya looloo waral fahum ñoom na way sàggan lañ walis gëm ndax ahlu fitra lañ bokkoon looloo waral nag li ëpp ci ñoom li li nekk ñu xam ne waaruñu woon lañu sàggan walis gëm looloo waral laqad xaq xëy na alqawlu baata mbugal ala aksarihim li gën a bëri ci ñoom moo waral ñu dem safara lu tax fahum ñoom laa yuminuun duñ gëm de kon gis nga ko aaya jàngoog yàlla yëkkati na ci saar wi bopp bi dayoob sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla baaxoo fu mu jaaree ci turu yonantu bi rek balaa wax jaa daanu mu teg ca garaat ba moo tax ba mu tuddee yaa siinu muy turam waaye ba muy jeexee rek mu ne wal quraanil hakim innaka la min al mursalina ñaareel bi tamit yàlla fonk yonantu bi fonk gu day ni ni mu gëñee ca dundam ba ni la gëñee ci toom gi gëñ naa ki sa dund bi moo tax mu ne ko la amruka innahum la fi sakratihim yamawun waaye gëñ naa ki sa risalatu bi gaa yi weddi tamit ne dëgg la ne innaka la minal na kon loolu de mënu koo paase mu ne ko tamit ala siratil mustaqim fi nga teg sa tànk foofu la bu ko wax bu ko wax ñaawee ba nga teggi sa tànk bu ko jëf bonee ba nga teggi sa tànk waaye fi nga ko teg foofu la fa la ko yonentu yi tegoon te mooy yoonu tawxiid ak yoonu wéetal yàlla man yàlla ma wàccee alquran muy téere bi gën téere dara taxul ma wàcceekoo ngir nga war cee waar nit ñi ñoo xam ne waaruñ woon seen bàyya waaye ñun dañoo nekk rek ña gën ya la gën a jege ci wa anzir ashirataka al aqrabina waaye yow sa jëmm ji ëpp na ñenn waaye yow pour ñëpp nga wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi waaye tamit mu ne ñooñu ahlu fitra la woon xamuñu woon dara looloo waral bi ma yónnee ci seen doom yi seen sët yi ab yonantu te seen baay bàyya xamuñu woon ko woon rek ñu weddi ko weddi gi ñu ko weddee tax nag la ma waxoon day gën di dëggu rek ne safara danaa ko feesal ci al ci la am la anna jahannama minal jinnati wan naasi day gën a dëggu rek moo tax mu ne laqad haqqal qawlu ala aktharihim akthariya nag toujours ci jamono gi ne mooy am yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam li muy mën a mën a waaree ba mu fiy nekk ñetti at bët bu set mu xëy wootee fan ñeen fukki nit la am ñu ko gëm ba ba muy gàddaa yi di am fukki at ak ñett ca nubuwatu ga ak risaalatu ga lim am ci saxaaba mën nañ ko koo limal mu dem madinatul munawara sax fa fukki at léppam di ñaar fukki at ak ñett ànd ak loolu lépp lim am ci ay saxaaba ñu ngi koy lim ba tey kon nga xam ne kon li gën a tuuti rek ñoo koy topp ñoo topp ci ci yoonu jub bi taabiina ya ñëw noona taabii taabiina ya ñëw ba ki suñ jamono ji li gën a néew rek ndax boo jëlee adduna bi juróom-ñaari milliards yu teg ñoo cay dund li ci gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñaari milliards ak genn wàll bu teg dara la kon la ca des yëpp nag yàlla benn benn benn kii la leen su ko defee kon nag ala aksarihim moom jamono ju nekk lay nekk moo tax kon aaya jàngoog aaya ji tegu ci muy inna ja'alna fi anaqihim aghlalan aaya la joo xam ne ñetti maanaa la am maanaa mu njëkk mi yàlla dafa def li ñu tuddee istiaaratu tamthiliya ñu jàng balaaxa ñoo ko xam mooy dafa abbal benn nirale benn portale ci nit koo xam ne dafa taxaw ñu jël ñaari loxoom ya takk ko ci doxam gi mu téen boole ko gëmmu kooka kon njub gu leer naññi gi yonantu bi di woote yàlla jox ko ko kooka du ko mën a gis ndax téen day teree gis gëmmu di teree gis nga boole ñaar yépp téen nga gëmmu nga su boobaa noo gisee su boobaa yow miracle bi rëy bi yàlla def ci sa jëmm ji nga xam ne man nga cee jaaree ba mën a wéetal yàlla sa dootoo ko gisati mooy dootoo gisati sa bopp waaye tamit mu misaalaat koo xam ne dañ koo tëj kaso moo xam dañ koo tooñ tëj ko wala dafa tooñ ñi tëj ko fa ci kaso goo xam ne matul deux mètres mu jël dënnam ba taf ko ci miir jël gannaawam gat mu tafu ci miir bu yëkkatee jooram teg ci miir bu yëkkatee càmmooyam teg ci miir mënul avancer mënul arrière kooka miracle yu rëy yi yàlla def ci ay kéemtaan ñi man cee xalam ba ba ba gëm yàlla moom du ko gis ndax ma ngi ci biir kaso ga gisatul jant gisatul weer gisatul géej te ñaar rek ngay mën a jaaree nag ba mën a wéetal yàlla kéemtaan gu rëy ga yàlla def ci sa bopp wala mu def ko ci leneen sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim yow nag fii anfusihim mënatoo koo amati ndax dangaa boole gëm ak téen fil afaqi mënatoo koo amati ndax dañ laa tëj ci benn kaso boo xam ne gisatoo li ci biti gisatoo dara istiaaratu tamthiliya boobu nag la yàlla indi waaye tamit ñaareel bi mooy noonu ñu mel yéeféeri la bëgg a wane ne téewu nañ walis jub ba bàyyiwuñ xel ngir jël ko ba mel ni nit koo xam ne dafa téen boole koo gëmm ku mel noonu xam nga mënta jariñoo li ci kanamam or la jamaa la mënu koo gis su boobaa nag mu ne noonu ñu mel bu yowmal xiyaamee noonu laa leen ñu melele dugal leen safara njañ leen takk seen loxo yi ci seen doq yi su ko defee lañuy ñuy protéger safara wa mooy seen xar ndax amatuñ loxo bu ñuy défendre yeew nañ ko ca ñu dugal leen tamit ci kaso goo xam ne day xat yaa ngi jël sa dënn bi taf ko ci miirab safara jël sa gannaaw gi taf ko ci miirab safara kon ndax noonu lañ meloon ci àdduna moo waral bu yow yowmal qiyaama noonu laa leen di melale ñetteel bi nag mooy sababu nusul bi ah, yonent bi danaan jàng alquran ca Makka abu jahlin ak walid ibnu mughiraat seen menn mbokk ñu ne fu ñu ko gisati muy jàng rek xeer ya xeer ya dal abu jahlin ñëw fekk yonent bi di jàng ci julli mu xàcc xeer ba ne man ko koy sànni rek loxoom ya laxasu ca doqam nga xoor ya xeer ya maanaam kolewu ca loxoom ba mu ji yooxoo ko ba yegg nitam ña lii nag ñu ne mu ne la ma doon def li ci la ma yàlla defee lii walid ibnu mughira ne ko yaa ñàkk fu la bàyyil ma dem mu fekkati yonentu ba di jàng mu jël ay xeer ne mi ngi ko koy sànni far moom gumba gisatu dara di daanoo ko jug di daanoo ko jug ba yegg ca nitam ña keneen ka ca des moom jëlaat xeer ya na ma ngay fekk yonentu bi muy jàng moom mu mujj di doxe gannaaw am na lu mu gis lu nit ña gisut boole koog di yooxu su ko defee kon nag moo tax yaasin léemu la mag ñi dañ ko daan léemoo lu nit ragal ci palaas boo fa jàngee yaasin jublu ca sàkku ngërmande yàlla yàlla musal la ca moo tax yonent bi sax keroog ba ko noonam yëlee ñëwee war koo songu ba muy war a dem gàddaay yi ci ci xisa bu gudd ñu jël fukki waxambaane yoo xam ne ñoo gën a jàmbaar yore seeni jaas yi ñu yore seeni xeej ñu war a fanaan ca buntu néegam ba te foog dana dana dana génn dem julli ji ñu ne ah bu génnee rek ngeen dóor a ndoor su ko defee nag bu dee mbokkam yi mënuñoo xeex ak fukki yi dañuy laaj diye rek te yéen araab yi seen diye moo doon fukki gëléem bu lislaam ñëwee la ko def muy téeméeri gëléem su ko defee nag kon famille bu ne génnee benn gëléem rek mu yomb gars yi ne d'accord loolu rafet na fekk seytaane moo leen moo leen moo leen wax xelaat booba ca daaru nadwa xisa bu gudd a gudd la waaye bañ koy wax wax lañ wax ak lañ def lépp ba lal pexe ma jibril la ñëw sa borom ne ko sa borom nee na gaa yaa ngi lay tërlu fii soo génnee rek du baax jàngal yaasin rek ba ci fuhum laa yubsiruna mu jàng ko rek tafli ko ci suuf sànni leen ko ñoom ñëpp ñu tëdd yi nelaw kenn ku nekk mel ni sa bopp bi fukki kilo suuf moo ca nekk mu jéggi leen dem te xamuñu ko moo tax kon yaasin lu waay ragal bu ko ci jàngee yàlla musal ko ca moo tax mu ne innaa naka ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ci seen doq ya ak laalan ay gax fa hiya moom loxo ya yëkkati nañ ko ilal adqaani mu jëm ca yaxi sikkiñ ya fa hum ñoom muqmahuuna way teen lañ ànd ak gëmmu wa jaxal naa def nañ min bayni aydihim ci seen kanam saddan ak mëdd wa min xalfihim aji nekkale seen gannaaw saddan mëdd fa naa axshaynaahum muur nañ leen ba tax na fa hum ñoom laa yubsiroon duñ gis de lii ma doon wax kon mooy istiaara istiaaratu tamthiliya bi mooy mamiru nii xam nga ne nit ku taxaw nga jël loxoom ya yeew ko ci xam nga loxo ya nekk ca roon yaxi sikkiñ ya mu boole téen ak gëmmu du mën a gisati miracle bi nekk ci boppam ki ñu tëj ci kaso lu matul deux mètres mu jël ba miir maanaam dënnam bi taf ko ci miir gannaawam ngi tafu ci miir mënul avancer mënul arrière mënta gis miracle yi nekk ci biti comme nag nii lañ mel bu yow mal qiyaamee tamit noonu laa leen di melale ca biir safara ndax noonu lañ mel sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya ji tegu ci yàlla day defal yonantu bi ne ko nag parfum nga yore soo sañoon sa parfum bi xen ñëpp ñëpp xewlu ci xetu parfum bi waaye nag am na ñoo xam ne daal amuñu sens waral laal sa parfum bi te warul leen a xeñ ndax parfum baax na waaye duut ci ñëpp un unku parfum baaxut ci moom mu ne ko sa gaa yi unku lañ parfum baaxut ci ñoom mënoo ci dara su ko defee moo tax mu ne ko wa sawaun aji xemoo la alayhim ci ñoom a anzartahum ndax waar nga leen am lam tunzirhum wala waaruloo leen ñoom daal li wér taxóor laa yumin duñ gëm mukk innama tunziru ndaal sa waaraate dana jariñ da koy taawil masdar mani tabaa ci képp koo xam ne nangu naa topp a zikra alquran wa xashiya ragal rahmaana yàlla bil xaybi ci fàddu mbir mu muy nekk ci fàddu fa bashirhu bégalal kooku bi maxfiratin ci njëggal wa ajrin ak payoor kër yi kërimin gu màgg te mooy aljanna xéewal yam làmboo kon yonent bi parfum nga yore waaye sa parfum bi bëgg nga ñëpp xéewlu ci xet gi waaye ñi yore jikko yu unku sa parfum wu bi du leen xeeñ moo tax mu def tibaaqu sal bi mooy sag waaraate ak sag ñàkk waaraate ñoo xem képp ñoom mënoo fexe ba ñu gëm nga def nga ñàkk a def dara loo mën a mën a waaraate mënoo waar ñu mel ni ndax yàlla kaste seen xol mu ne ko nag sa waaraate dana jëriñ da nga koy taawil masdar yan faxu inzaaruka man ittaba'a zikra sa waaraate mi ngi mën a jëriñee ci ku topp alquran waaye ku sa waaraate ku topp loolu mënoo koo jëriñ mi ngi mel ni léebu arab bale waaja léeboon tasmaa bil muayidi dañ koy nasab ndax léeb la ta al amsaalu la tatagayaru waaye su boobaa tamit mudaari moom da nga koy taawil masdar bi maanaam la fa nekkoon mooy sam'uka bil muayidi xayrun min an sa dégg ci muayid yi moo gën nga gis ko muayid yu ab sàmm la woon bu am tur te jëmu ja xeebu soo ko déggee turam wi fees na àdduna waaye jëmam di ko xeebu la arab di léeboo lu mel noonu ci moom su ko defee nag kon ñoom ñaar ñoo bokk atte ca wàllu wa wax def na tamit tibaaq ci min bayni aydihim wa min xalfihim ndax kanam euh, gannaaw mooy safaanam mu def loolu maanaam ci ci aaya ji aaya ji tegu ci nag mu ngi wane dekk yi moom yàlla dana ko def waaye dana ko def képp kum bind waaye ñaareel bi tamit képp koo xam ne dekk nga ca kanam yàlla ñaari payoor la la yàlla yàllay fay buy ñaari bakkaar tamit ñaari tooñ nga am kenn ku ne ñaari tooñ la am ak ñaari ñaar yu baax mooy ñaari ñaar yu baax ya mooy li nga def ci lu baax yaa ko jëf directement wala li nga jëf ñu jëf te lu baax loolu ba ba ngay dee payoor ga da lay fekk sa biir bàmmeel waaye lu bon tamit ñaar la loo def ci lu bon ak lu ñu def ci lu bon ci loo def loolu lépp tamit dafa la fay fekk kon boo fi nekkee di def lu bon di def lu bon ba dee loolu doy na lu bon ga bàyyi fi nag tabax fi loo xamee tamit ni nga dañ fay dagee di fecci pooj bu nit pooj rek maanaam mbugal ma fekkale sa biir bàmmeel nekk fi tamit di def lu bon di naan sàngara ko jaay ba dee doy na bon nga jàllal bi ko tamit nag tabax place yoo xam ne dañ fay jaayee sàngara di fa naanee ku naan kaas ku ne dana ca am bàkkaar te du wàññi dara ca bàkkaaram ba waaye yow mi def loolu tamit da nga ca am bàkkaar moo tax kon euh, moo tax yàlla ne wa naktubu maa qaddamu wa athaarahum kon li nga def ci lu bon dañ la koy bindal waaye jeexital yi nga fi bàyyi ñi cay def lu bon tamit dafa lay fekk ci sa biir bàmmeel moo tax mu ne inaa naka ñun yàlla nax ñun ñun nox yi danañu dundal mawtaa way deeña wa naktubu danañu bindalu maa qaddamoo lañ jiitaloon ci lu baax ak ci lu bon wa athaaruhum ak seen jeexital ya wa kulla shay'in lépp lëf takk nañ ko istiqaal la ahsaynaahu takk nañ ko fii imaamin mu nekk ci téere mu binin ngay aji biral te mooy lahu maxfuus dara nëbbuwul ñu su ko defee kon aaya ji mooy dëppoog xadis bi yonent bi woon man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati waaye wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawmil qiyamati képp ku fonde yoon wu baax jàkka joo tabax la jëmmi tabax ga rek yàlla na la ci bindal yool ku fa julleeti ba bay àdduna bi di tukkee nga am ca julleem nga yool te du wàññi ca yoolam ba dara nga tracé aw yoon moo xam tali la wala raara nit ñi di ca jaar di ca jaarale lañ fa bëgg a jaarale ba bay àdduna bi tukki ku fa jaar nga am ca yool moom mu am ca yool te du wàññi ci sa yool bi dara nga gas teen noona nga jëmbat garab noona nga jàngal ay nit ñi jàngalante noona nga jël sa xaalis def ko ci e, téere yi ñu móol ni nga di ko jàng ba péncam yàlla noona demee timit safaan ba boo fi bàyyee lu bon nga def ko fi timit sa lu bon loola lañ luñ ca defati rek dafa lay fekk ci sa biir bàmmeel kon nag dëgg-dëgg def lu bon rek te kenn mënu cee mukki ci ñun doy na waaye boo fi naree bàyyi lu ñuy def ci lu bon mu la fay fekk nag dara jëru ko loo ko jëndee ci àdduna bi ci alal ju mën a doon lim lay coûter seer fa fa ca ca àllaaxira moo ko gën a seer lool la jar naa bàyyi xel waaye nag topp al topp alal ak topp daraja ak topp succès wane ne lii maa ko fi bàyyi te li ngay concurrence naan succès la dara baaxu ci ba nga deemu la cay fekk sa biir bàmmeel jar naa bàyyi xel yàllaa ko wax te du dañ aaya ji nag fekk li ko taxoon a wàcc banu salmata fi ñu dëkkoon dafa sori ma madinatu munawara eh, wetu jumaa yu yonantu ba sallallahu alayhi wasallam am benn bayaal ñu bëgg a tuxu si yonantu bi ne leen foofa ngeen dëkk di dox di ñëw ci jàkka ji jeexital googu ngeen di dox jeexital googu dañ leen koy bindal ba yowmal qiyaam ba leen yonantu bi waxee loola rek la ne ñun bàyyi nañ suñ tuxu gi ci la borom xam-xam yi jëlee ne ku la gën a sori distance bu muy dox di julli ci jàkka wala jumaa moo la ëpp yool ñaam werante nag na jàkka ji nekk sa koñ bi nga bàyyi ko fi dem ci jàkka ju sori ja bu ci gën coow lu bari la ci borom xam-xam yi wax ñi na ngeen bu sori baa gën su fekkee par parparloo tawut waaye boo fi nekkee parloo naan jàkka ji jàkkaay tariqa sàngam la te man tariqa sàngam laa bokk wala jàkkaay sëriñ diw la foofa laa bokk damay dem doo ci jëlee benn payoor kon ci ngay déggee ne kon ndeke jëlli ji julli ji mbooloo lu ama am doole la am gi am doole tax ñooña bëggoon a jege jàkka ji yonent bi ne leen sax leen foofa rek tey julli si ndax ngeen seen payoor ga gën a yokk moo tax julli ji mbooloo sunna la sunnatu mu akkada la bu dul jumaa waaye li muy nekk-nekk sunnatu mu akkada foor na foor bu day ne yonent bi nee na hitte woon naa waxtu jot rek tusubaar mbaa tàkkusaan timis gee ma ut kenn xëcc ko mu jiite mbooloo mi ma dem ca kër yi ñi julli siwut te amuñu ngànta ma lakk seen kër yi su fekkoon ne ku amul ngànta julli jiwoo ci mbooloo ñu lakk sa kër kenn du fi de sa kër ndax fu mel ni jamono gi ñu fonk julli mbooloo bëreetut nekk jullit dëkk ci jàkka ji dëkk ci dëkk bi mu am jàkka weeru lëmm doo dem semaine lëmm doo dem am na ñoo xam ne korité te ak ca àll ba lañ koy julli yàlla taxu te sunna rek la nga bàyyi fi julleeg farata gi loolu lépp kon dafa jara bàyyi xel jullig mbooloo dafa am doole lislaam fonk na ko te moo tax a wàcc aaya ji ji tegu ci muy wadrib lahum masalan yàlla dafa ñuy léebal alquran téere bu bari léeb la li fi nekk ci léeb boo demee ci tafsirul munir mu ne mat na junney léeb léeb nag mooy lu lay jegeel lu la sori léegi-léegi yàlla defee ko ci léebee dara ci dara ñaar yum comparé yu kéemaane nga mën caa déggee mbir ma kii mu li ni wa daraba laahu masalan lazina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luutin kooka dafay comparer loola ñi ñaar ñoo xam ne dañoo nekk ci ñaar ñi gën ci seen jamono boole koog bokk di ñaar ñi gën a xées am jëkkër ji gën ci jëkkër yi te terewul yaa gën a bon ci nit ñëpp muy soxna si yonentu yàlla lut ak yonentu yàlla noox kon loolu mat na lépp léeg-léeg na mu indi lépp boo xam ne day nekk lu yéeme rek waaye du am dara lu mu koy nira léeg su ko defee nag loolu bii ci la bokk mooy sadd gim sadd lépp ci dëkk bi wadrib lahum masalan ashaabal qaryati lu mat léeb la nag lu ko waral alquran dafa nekk ci dayob toftale ndax gis nga ñii ba ñu weddee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fi yàlla mu jëg ñoom mooy mbugal leen mbugalam àdduna su ëllëgee mu mbugal leen mbugalam àllaaxira yàlla nag bëgg a léeb niir la ne ña weddi woon yonantu ya jiitu woon tamit mbugaloon naa leen mbugalam àdduna ba ñu dee mbugal naa leen mbugalam àllaaxira ci wadrib lahu masalan fekk li ko tax a jug yonentu yàlla Isa bi ko yàlla yónnee dafa tànnoon ñaari nit kenn ki tudd Sadiq kenn ki tudd Masduq mu yónni leen ci dëkk bu ñu tuddee Antakiya ne leen ña fa nekk dégg naa ne xiram la ñuy jaamu ñoom ak seen buur boobu ñuy tuddee inti xiis dem leen ca moom ngeen woo leen ñu wéetal yàlla bàyyi jaamu xiram yi ñooñoy départ ba njubee dëkk bi romb benn sàmm bu màgget mu ne leen yéen ay ñan ñu ne ko ñun ñaari ndawi yonentu yàlla Isa lañ luy seen soxla ñu ne ko dañoo ñëw ci dëkk bi pour xoo ñi bàyyi jaamu xiram jaamu yàlla kooka ne leen ndax am ngeen benn preuve ñu ne ko lu nit feebar feebar suñu ko wanee mën nañ koo faj ci nu mu gën a gaawee kooka moom profito ne ko man am naa benn xale boo xam ne fu ne dem naa fa mënuma ci dara kaay leen ngeen fajal ma ko ñu yóbbu ko mu ñi ñi raay ko rek def la ñuy def rek waaja saafarawu ca saasa kooku mooy Habibu Najjar moom foofa la taxaw rek de ashhadu an laa ilaha illallah wa anna isa rasulullahi mu seede foofa gëm moom ca saasa ñoom ñu continuer dugg ca dëkk ba commencé woote seen mbir siiw ba buur bi woolu leen dalal leen ñi laaj ko ñooy ñan ñu ne ko ñaari ndawi yonentu yàlla isa lañ luy seen mbir dañoo yónni pour ngeen bàyyi jaamu xiram mënul dara te ngeen dem jaamu ji yàlla mi leen bind buur ba mer ba dégluwul leen tëj leen ca kaso ga bi ko yonentu yàlla saa yëgee nag renforcer leen beneen ki nga xam ne moo jiite xawaari yi nañ ni ko tuddee Sam'un ne ko dawal nu mu gën a gaawee nga dem ca dëkk ba fexe ba ñaar ñooñu ñu tëj ci kaso yi ñu génn mu def pexe ba mu ñëwee dafa maskaw mel ni du moom kenn xamu ko mu ànd ak gaay yi ci seen xiram ya bañ foog ne moom xiram la gëm mu baax sell ba gaaya tagg ko ca mbaaxam ga ñu jël mbiram ya jotale ko xibaaru buur ba buur ba woo ko ñu dalal ko ñu toog di waxtaan ci la nag laaj buur bi ne ko dégg naa am na ñaar ñu ñëwoon sa dëkk bi di la woo ci wàllu yàlla nga tëj leen nu seen mbir demee mu ne ko ñooñ daal dañoo ñëw di ma commencé wax yoo xam ni kenn mënu koo dégg ma mer ba tëj leen mu ne ko ndax déglu nga leen mu ne ko non dégluwuma leen mu ne ko da nga leen di génnee nga déglu leen mu génnee leen nag léegi nag samaun laaj leen ne waaw yéen ñaar yéen ay ñan ñu ne ko ndax yàlla Isa lañ dafa ñoo yónni pour nga ñëw ci dëkk bi waar leen ñi bàyyi jaamu xirim te jaamu yàlla ndax loolu moo leen di jariñ àdduna ak àllaaxira mu ne ko gàttal leen ko ñu ne ko ki ñuy jaamu mooy ki man lépp lépp loo jaamooti ti kuddul yàlla mënul tus dañ koy manal wax ja wax ja ba mu bari mu ne leen ndax am ngeen benn kaawteef ñu ne ah kay yonent yàlla Isaa roof nañu loo xam ne bu ñu ko defee mu'jiza lay doon ci moom waaye karaama lay doon ci ñun ci dekkil ku dee waaye tamit feebar ko wéeral koo xam ne dafa feebar ci wa ubrihul ak maha nam ko waxee su ko defee tamit nag buur ba profité andil leen ku feebar ñi def la ñuy def mu mu mu wér ke saasa am na ñu ne ca saasa la buur bi gëm ñenn ngeen ne déedéet buur bi ne lii daal njabar rek la yittewoo ngir bëgg leen a rey foofa rek nag ci xew-xew bi la euh, Habibu Najaar dawee ca pegg dëkk ba ñëw nag commencé leen a waar na ñii de ay ndaw yu baax lañ dañ leen di gindi jëmee leen ci yàlla ta laajuñ leen benn payoor te ñoom tamit ñu juba jub lañ gaa yi ne ko kon da ngaa ànd ak ñoom mu ne waaw waaw moom moom ke saasa la ko gaa yi rey kon moom daa'iya bu mag la xoote na jiwaaraate ci yàlla bañ ba bakkanam des ca kon kuy woote ci wàllu yàlla dafa laa war a jaral lu ne su ko defee nag xisa boobu lay alquran di nettali nii moo tax mu ne wadrib sadal lahum ñaan leen masalan lépp ashaabal qaryati ca mbooloom dëkk ba mafoolam ñaareel la is jaaha ba leen dikkalee al mursaluuna ñun yónni ña is arsalna ba ñu yónnee ilayhim jëm ca waa dëkk ba is nay ni ñaar muy saadiq ak masduux fa ma ñi narloo leen fa asas naa ñi dëgërle leen bi saalisin ci ku leen ñetteel di sam'un ba ñu àndee ñoom ñëpp ñu ñëw fa xaaloo ñu ne innaa naka ñun mursaluuna ñun yónni lañ ilaykum jëm ci yéen dañoo yónni ci yéen de bañ waxee lii xaaloo waa dëkk ba ne leen maa antum déet illa illaa basharun lu dul ngeen di mindéef mislu naa kem ñun da ngeen di lekk di naan takk ay soxna ami soxla kon lu ngeen ñu gënee ba ñuy xoo wa ma ansala wàcceehut rahmaanu yàlla min shay'in ci dara in antum déet yéen illa takdibun lu ngeen di nar rek xaaloo yonantu ya ne rabbunaa borom suñu yàlla mu xam na gëñ la ne innaa naka ñun la mursalun ñu yónni lañ ilaykum jëm ci yéen wa maa alaynaa déet ñu war illal balaaxu nderet jotal mu biinu gay aji biral te def nañ ko kon gis nga ko weddee ngoog nit ki bu weddee na mu weddee noonu nga ko war a saxalalee yow tamit euh, dafay am ci li ñuy jàng ci balaaga fastaxni an mu akkadaatil xukmi in lam yashkukan aw yunkiran kama zukin wa awjiban in yunkiri tawkiida aw yashkukan fiihi fastujiida sooy wax ak nit ki te fekk weddihu dara xewut jarul jarul jarul jarul andi tawkiid zaydun qaayimun rek doy na seet taxaw na bu ko weddi na naan lam yaqum zaydun nga door a andi tawkiid ne ko inna saydan la qaa'imun mu weddihaat ne inna saydan lam yaqum nga ne ko wallahi inna saydan la qaa'imun foofa la wax ji xem nag moo tax ñoom ba ñu ñëwee gaa yi weddi leen ca saasa la njëkk a def rek mooy andi tawkiid ne inna ilaykum la mursaluuna ñu ngi dëggal di feddali ne ñun ay ndawi yàlla lañ yàlla ñu yónni ci yéen ndax inna rasula bi qadril mursili moo tax ñu mel ne ñoom lañ yónni te fekk ñoom dañ leen a sédd dara rek ca ba waaye bu la président yónnee da ngay amee darajaay président dem ñu lalal la tapis rouge nga foo ne yow lañ ko lalal fekk président bi lañ ko lalal bu la ministre bi yónnee noona léeg-léeg tamit yoon yónni la nga sol dara ju rëy ñu lay xoolee darajaay sëriñ ba jox la fauteuil ba gën a baax nga foo ne yow lañ ko defal fekk sëriñ ba lañ ko defal su ko defee ñoom tamit li leen yonentu yàlla Isa yónnee tax ñuy war a darajaay yonentu yàlla Isa ba gaa yi nag waxee ñi weddi tamit ñu boolee gëñ maanaam andi nañ gën ne xaalu rabbuna yaalamu ñi indi taw kii ne inna ilaykum la mursaluna ñu gën koo dëgëral nag ci wa maa alaynaa illal balaaqul mubiin fa la wax xem mënoo koo mënoo koo yóbbu mënoo koo doole ci dara kon euh, wax dafa am yoon euh, moo tax boo jàngut balaaxa doo xam nu ñuy waxee doo xam nu ñuy tontoo ndax léeg-léeg nga gëñ fu ñu warta gëñee léegi-léeg nga nga nga nga bañ a gëñ fu ñu waroon a gëñee waaye moo lay xamal fu ñu war a gëñee ak fu ñu warta gëñee ak wax ju ne lan la laaj waxam ak lan la laaj tontoom waaye bu loolu amut du am léegi-léegi nag kii ki diwut dañ ko jàppee ni ku weddi moo dal yonentu yàlla noox ak nitam ña xam nga tey ci olof bu nit ki ñëwoon euh, maanaam fàq yar jël benn yar ne nag fexeel ba bul dox sama digganteeg moom xam nga waa ji moom day sa saasa day dëggal ni kii xanaa dafa maa bëgg a kon loolu lay xelam di njëkk a daj yonentu yàlla Isaa nag moom yàlla Moussa kon yonentu yàlla noox yàlla dafa ne ko defaral gaal waaye bul ma ñaan intervention ci sa nit ñi comme que loolu kon mooy euh, utal utal yar bul dox sama digganteeg sa gaa yi su boobaa kon dana am sikki sàkkaak waaw sama gaa yi moom dañ leen a bëgg a mbugalam dañ leen a bëgg a sowe yàlla ne ko nag innahum muxraquuna dañ leen di labal de pourtant weddiwut ko waaye mu indi tawkiit kon léeg-léeg ku weddiwut dañ ko jàppee ni ku weddi su ko defee kon nag ñoom lii lañ wax bi ñu ñëwee nag euh, dëggal lii ba pare woo nañ leen ci xel lii fa les nag mooy jaay doole ak wax ju ñaaw xam nga nit ki boo ko indilee dëgg joo xam ne mënu koo wax mënut a toxal dëgg ja bu xolam rafetee day jébbalu bu xolam rafetut mu indi la xas wu gën a ñaaw ne loo ma xamal xamal naa la lu ko gën a ñaaw loolu nag moo dal gaa yi nit yonent yàlla Isaa yi moom lay wax si nii moo tax mu ne xaaloo ñoom wax nañ ne innaa naka ñun te tayar naa gaaflu nañ bikum ci yéen ba ngeen ñëwee ci dëkk bi ba léegi yàlla gi tawatut dara doxut la in lam tantahoo su ngeen daytalut la narju man nakum danañu jamal leen danañu dojal leen mooy jël ay doj sànni leen ko wala yamassanakum dana jot leen mi naa ci ñun azabun mbugal alimun may boro mag méttital te mooy dañ leen rey xaaloo gaa tontu leen tamit di ndaw yonentu yàlla Isaa ya ne taa'irukum seen gaaf gi da koy taawil masdar ismu faa'il mi masdar la seen gaaf gi maakum an aj ànd naag yéen de te gaaf man ta passé wedd yàlla ak bon te loolu moo nekk ci yéen def na jinaasu istiqaaq ndax yéen da ngeen a bëgg a in zukirtum ndax saa yoo xamee ne waareef na leen bal li fi nekk antum yéen xawmun ngeen aw nit musrifu na ñu jéggi dayo ci weddi yàlla ak jéggi dayo ci yàq a gaa yi nag bañ leen waxee wax ju leer ji ñi waroon a mën a jébbalu léegi nag euh, ñi jaay dooleeg wax ju ñaaw kenn gënu maa ñaaw làmmeñ léeg-léeg nit wax ko day nga xam ne maa la gën a ñaaw làmmeñ maa la gën a soxor maa la gën a bon maa la gën a iñaan li ngay jaay lépp danaa ko jënd te waage la muy jaay dara baaxu ci loo ciy jënd jërul jënd kon su ko defee kon nag ñoom ñu wax wax jooju ne daal dangeen a gaaf gaaf nag lu fi yàgg la ak gaafal nit moo tax ñoom ñi gaafal leen ne ba ngeen ñëwee ba léegi dëkk bi doxut baat bu fi yàgg la su ko defee nag ci biir foofu rek benn waay ju baax ju ngi tuddee Habibu Najaar dawee ca pegg dëkk ba nag ñëw wara wax wax jii nag Habibu Najaar bokk na ci na siddiquna salaasatun yonentu dafa wax ne ñu dëgguñi amee martabaab siddiqiyatu ñett lañ ñooña Habibu Najaar ca la bokk waa ja gëmoon doon nëbb ngëmam ga ca nitu yonantu yàlla ca yàlla Muusaa ya te nekkoon ca pale Firawna ba yaktumu iimaanuhu ba alquran wax ko kooka ca siddiquuna ya moo la dëgg ku leen ñetteel nag mooy Aboubacar Siddiq ñett ñi ñooñu xam ne ay siddiquuna lañ moom nag menuisier la woon da doon liggéey ci bois Habibu Najaar boo demee ca tafsirul maraaxi loolu la wax mu ne lool maanaam loolu la doon liggéey euh, ràngal na ko maanaam daraja yu bëree bëree bëri boo demee ki tafsir bi naa ko ca wax waaye nag moom daal bi lii xewee rek euh, ba ñu wax dëgg ji euh, buur bi la ca xew nar caa xew rek ci la dawee ca dëkk ba rek ñëw commencé wax ak ñoom moom lay wax si nii moo tax mu ne wajaa adikk na min aqsal madinati bàyyeekoo fa gën a sori ca dëkk ba ku ñëw rajulun góor yasaa ma ngay daw yegg si na xaala mu ne yaa qawmi sa mën nit ñi ittabi'u topp leen mursali nañu ñu yónni ñi ittabi'u topp leen man laa yasalukum ñoo xam ne duñu leen laaj ajiran genn payoor fekk wahum ñoom muhtaduuna way jub lañ gaaye ne ko xanaa yow da leen a topp mu ne wamaa lii ana lan moo ma ñeexal laa abudu ba du ma jaamu lazi buur ba nga xam ne fatara nii moo ma bind wa turjauna te def na delloo leen yéen ñëpp ilayhi jëm ca buur ba def na iltifaat wa arjoo lañ doon déglu a attaxisu ndax danaa jàpp min doonihi ku dul yàlla alihatan ay xiram xiram yu tekkiwut dara yoo xam ne in yurid nii bu namee ci man rahmaanu yàlla bi durin ci lor laa tux nii mënu ñoo jañ annii walis ma shafaatuhum seen ak ramm shay an dara wala yunqisuuni te ñoo ñu maa xettali inni naka man idan boobale su ma fi bàyyee yàlla dem di jaamu xiram yu tekkiwut dara la fii dalaalin kon aji nekk laa ci sànkute mu binin ngay aji biral de lii la wax ak nitam ña lu mu wax ak yonantu ya mu ne wax mu teg ci ne inni naka man amantu gëm naa bi rabbikum ci seen borom yéen yonantu yi ma fasma'uni déglu leen sama wax ji de maa ngi leen di seedeel ne gëm naa leen ba muy wax lii rek gaa ya ray ko yàlla na bañ koy rey rooxu gay teqalikoo jëmu ji rek mu fanaani aljana moom la wax ne xiila waxeef na ne u udxili tàbbal janata aljana ba mu duggee aljana mbokk yi di ko jooy moom muy muy muy jooy mbokkam ya ne li ma yëg su ngeen ko yëgoon da ngeen ni ree waaye du ngeen ma jooy moo tax mu ne xaala mu ne yaa yëgal ne layta xaw mi xellante woon sama nit ñi la mu yaxlamuuna ñi xam bi maa ca la nga xam ne xafara jéggal na lii ñeexal ma rabbi sama borom wa jaala nii ak mu jël gi ma mu jël minal mukarramin ma bokk ci ñu tedd ña xam nga bëri na ko sa baay dee nga di ko jooy fekk sa baay ngi lay jooy parce que koo xam ne yaa ngi koy jooy te fekk moom texe na moom mi ngi lay jooy di la yërëm sukraatul mawti ni mu méttee te jaaragoo ci maa lay jooy lëndëm ak bàmmeel ñetti fan ya jaaragoo ci dikk ñaari malaaka ya nakiir mun kiir jaaragoo ci su ko defee yow ngay jooy rek fekk muy jooy mooy dal xabibu na jaar nitam ñaa ngi koy jooy moom mi ngi leen di jooy ne billaay sama nit ñi waroon nañoo xam li ma nekkee tey xéewal gii ma nekk suñ ko xamoon seen jooy yooya nañ ko remplacer ree comme ni ma nee man di ko ree moo tax saay ba ne yow néew yow doomu aadama da judd nit ñi di jooy rek nit ñi di nga dee nit ñiy jooy fexeel ba mu nit ñi jooy fekk yow yaa ngi ree waaye bu nit ñi jooy ngay jooy dana métti de loolu nag fii lañ koy mën a liggéeyee su ko defee kon nag bu Habibu Najjaar daaya bu mag la wane neen tamit ki topp ñaar la ki ñu topp ko mooy koo xam ne xam na ñaareel bi jub na te du sonal kenn waaye waa ji lum jub-jub bu lay sonal heure bu ne dereet heure bu ne mu téléphone la heure bu ne mu wax la soxla bu yàggee nga daw ko wala boo séenee téléphone am ba ko te loolu bari na waaye dafa ne ittabi'u man laa yasalukum ajran topp leen koo xam ne laaju leen dara waaye tamit beneen ba mooy fekk waxu muhtaduna bu la nit ki laajul dara ta fekk jubu tamit jëru topp bu jubee tamit te di la sonal tamit jëru topp jub na bala ko nit kay def day fekk xam-xam lal ko moo koy dimbali nit nag mën naa am xam-xam te du jub tamit nag moo tax kon yii la leen wax ne mooy critères yi nga xam ne ku mu nekk ci war nañ laa topp kon kenn l'islam bëggul kuy sonal nit ñi yonentu yàlla Muhammad ak ñëpp ku wax da ngay wax ne man du ma sonal kenn moo tax mu ne man nag danaa jaamu buur bu ma bind muy yàlla te yéen ñëpp ci moom dañ leen di delloo du ma fi topp xërëm yu tekkiwu dara yi luñ ma dara ma bàyyi ko fi dem ma bàyyi fi yàlla dem di leen jaamu ji maa ngi leen di seedeel yéen yonent yi ne gëm naa yàlla su ko defee nag gars yi rey nañ ko waaye ma nga ma nga yeewoo ji aljana xam naa nag euh, wax ji jeexut buñ ko toppee suba gaa ya ko rey ñu mujj lay alquran di wax suba mooy nekk boppi saar bi parce que duñu rey duñu rey euh, ndawal yàlla lu baax lii di daaya bi bu màgg bi di amati jàmm waaye moo waral bañ koy ray rek ñoom tamit yàlla ray na leen nu leen yàlla rayee nag suba lay doon incha allahu ñu ngi sant plateau bi